waaye itam nag ci wàllu xam-xam mhm. am na secret yoo xam ne mën na génne nit kaso hmm. mën na génne nit kaso ki ñu tëj ci kaso uh-huh. am na secret yoo xam ne mën na ko faa génnee am na ci loo xam ne itam mbiri jinne lay doon mooy génne nit ci kaso te moom sax boo ko laajoon ban buntu la jaaree du la ko wax secret bi nga xam ne moom la booy jinne génn ci kaso bi nag xereñceef la waaye du gàllaaj Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage Masha'allah, allah euh, cheikh bi ci euh, kàddu yu am solo yi euh, waye itam benen xew ni kiy à la de di xew suis ci biir rewum Sénégal mu am ci kenn ko xamanteni ni dafa de te ñi nga xamni yëngu ci droit de yëngu ci walu yoon boy jinné la mu melni ay at yu baree ngi ni sa buñu ko prison Sénégal yi nga am yaakar lu am sécurité am sécurité am sécurité. dafay rëcc génn te bu rëccee day yónnee ay message di wax lu nekk ñépp xam ne mi ngi ci biir réew mi am ci nag yenn borom yi xam-xam yoo xamante ni dañuy wax ni gàllaajam moo baax ndax gàllaaj mën naa àgg doomu aadama foofu. <laughs> waaw. buñ la tëjee kaso sax lu mu ñàng ñàng nga rëcc génn dem sa waaw xam nga am na gàllaaj yoo xam ne day tax nit ki du dugg kaso. Hmm. Euh, gàllaaj bi tey nit dugg kaso nag. kenn du ko hmm. takk. Mhm. kenn du ko takk ndax boo nee salaamaaleykum war a dugg kaso ci ku war a dugg kaso euh, dañ naan ko tekkil kon gàllaaj kenn du ko duggaale kaso kon bu ñu la waxee ne gàllaaj bi du dugg kaso wax nañ la dëgg waaye euh, dangay am gàllaaj njëkk avant ngay dugg kaso tooñkat nag kenn mënu ko wutal gàllaaj tooñkat kenn mënu ko wutal gàllaaj mhm. waaye itam nag ci wàllu xam-xam mhm. am na secret yoo xam ne mën na génne nit kaso mën na génne nit kaso ki ñu tëj ci kaso uh-huh. am na secret yoo xam ne mën na ko faa génnee am na ci loo xam ne itam mbiri jinne lay doon mooy génne nit ci kaso te moom sax boo ko laajoon ban buntu la jaaree du la ko wax secret bi nga xam ne moom la booy jinne génn ci kaso bi nag xereñceef la waaye du gàllaaj maanaam xereñceef la uh-huh. waaye du gàllaaj goo gii may wax man bokkut ak gàllank bi ngay expliqué. yow ok. dëgg la am na jat am na jat yoo xam ne tey boo ko jatee. Mhm. tey boo nekkoon fi bërëb mën nga koo jat génn romb leen te duñ gis loolu moom am na hmm. maanaam nga jat jat bi. Mhm. bu ma ko jatoon léegi mën na maa doxantu ni dem dikk te doo ma gis. ok. Mhm. kooku am na. am na itam lu ñuy wax nibi nirk mooy loo xam ne. Mhm. Euh, boo ko takkoon fii tey kenn du la gis loolu itam am na ndombaam am na jatam am na waaye moom lii mu def ànd naa gàllaaj waaye ànd naa xarañteef. ak xarañteef ànd naa git ay complice yu koy jàppale ndax am na loo xam ne kenn. Mhm. maanaam maanaam melokaan wi kenn mun la ko dafay dafa yéeme trop ci ni muy ci ni muy demee waaw. effectivement lii tam war na tax. Mhm. réew mi ñu nekk ñu gën a saytuwaat seen kaso yi bu baax a baax. gën koo am moo gën a am sécurité. Mhm. ndax lu mel nii du fi jóg. jamono yële ci gannaaw nga xam ne manifestation bi amoon na. Mhm. déggoon naa détenu yoo xam ne dañoo dañoo daw rëcc. kon donc lu mel nii. war na gën a tax. ñi nga xam ne ñoo yor kaso yi ñu gën a farlu bu baax a baax a baax gën a sécuriser seen seen seen kaso yi. ba rëcc du mën a am. effectivement effectivement. waaw ndax euh, lu mel nii moom. Mhm. Euh, bu ko nit defee ci béréb defaat ko fi béréb war nañu ko saytu bu baax a baax a baax. effectivement. te mbooleem fi mu jaar da gis ne ay faay ne fii la jaar génn. bu dee fu nu yatt la maa ngi gis benn tur bu ñu ma wan ne fa la jaar mhm. dañ ko yatt matériel moo fa jaar dañ ko yatt fu mu jëlee matériel ba mu fa jaarale ba ba def ko kon am na ko ko jàppale waaw ba loolu am effectivement waaw kon nag euh, munta jël buum takk ko ci biti dugg ci biir génn loo gis naa benn signe bu ñu ma ma nag dëgg la xaw ma du dëgg mhm. waaye su fekkee am na kan moo ko demaloon ci gannaaw defal ko loolu ba tax mu mën ci jaar ñëw te ni ma gisee kaso bii ci ci ci ci cent mètres fi ci rëbës. Mhm. Euh, gis naa ne daw fa yombul. miir ba gàttul ak grillage bi. Mhm. boo nee bëreet di daw bala ngaa génn ñu gis la. te am na ñoo xam ne du ñu nelaw dañuy fanaanee xoole ba bët set. effectivement. Mhm. am na ñuy circuler waaye am na ñu nekk ci kaw di xool. kon donc lu mel nii. war nañoo gëna xol bu baax baax baax scène bi fan la jaar. ñan ñoo gardé won fan la fan la fan la fan la fan la fan la. effectivement effectivement. waaw effectivement waaw. macha allah ci kàddu yi am solo yi waaye itam macha allah ci leeral yi. lii rek a tax mbégteeg contentement lay doon saa su nekk rek. ci ñun saa bu xew-xew bu mel ni amee. Mm-hmm. faaw ñu ñëw seet si la pour waxtaan ci ak yow tellement que lii génn ci yow mm-hmm. euh, dafay daal di jëriñ ju baree baree baree euh, bari. sang bi xam naa ne nag euh, émission bi bu ma nee rek sëñ Abdou Lahad la ñuy seeti wala ñi nga xamante ni jot nañ laa gis ci écran bi. Mm-hmm. te gisoon émission yi fi jotoon a jàll. macha allah ñëpp fi mu toll nii toog nañu escorté toog di xaar. la ñu fi indi woon doon ko di doon ko teg ci kaw taal bi ni ay jàmbat jëmoon ci wàllu néew kàttan beeg ci wàllu ngóor a beeg yu ni mel mhm. tey bi nu ñëwee sa kër fekk nañ fi yeneen i bagage yoo xam ne bàyyi wuñ ko fi woon mhm. lu ci mel ni luy yokk ginnaawu jigéen loo xam ne dafay yokk góor ci mhm. formam ndax itam léegi léeg mu am ay cikalik góor ñoo xam ne dañoo xaw a tuuti lool ba mel ni man te soxna yi di bëgg léeg-léeg ñu xaw a jàpp tuuti mu mel ni yaa ngi yëngu ci xeetu produit yooyu xam nga xam moom xaw ma bokk ci Euh, mi ngi mel ne rek ki nekk ci daara di jàng di dem di gën a yokk da gën a yokk da gën a yokk di gën a yokk di gën a yokk mm-hmm. lépp loo xam ne ñoo ngi koy liggéey mm-hmm. bala ñu ko jox kenn danañ am ñu ñu ko palaase ci suñu ay nit ne leen iseen leen ñu lii ngeen saytu ko ci seen bopp ba xam lan lay lan lay lan lay lan lay def mm-hmm. ñu koo génnee ci biti moo waral nag lépp loo xam ne génne nañ ko rek. Mhm. dafa dafa am satisfaction bu baax a baax ci ci ñi ñuy jëflanteel. effectivement donc euh, bari na léegi ci jëfandikoo yu ñuy yu ñuy jëfandikoo ci wàllu euh, awra góor wala itam jigéen yoo xam ne pour. gannaawam ak yu demee noonu. Mhm. vraiment bari na ci yoo xam ne ñoo ngi ciy ñoo koy def te itam yàlla ngi ci suturaal daal. effectivement effectivement effectivement euh, bi ñu defee sunu vidéo bi dafa am benn soxna su ma ci woo téléphone. Mhm. ni ni ma ni ma xanaa awra nekkul cër bu sunu borom bind nan xel mënul nangu nga yokk sa awra ma ne ko xanaa kon xel mënul nangu ñu yokk ginnaawu jigéen. pourtant jigéen des ko yokkal ginnaawam ah des ko yokkal ay weenam kon bu ñu nee mënees naa yokk awra góor xel mën na ko nangu kon d'accord xam nga euh, damay wax toujours ne awra sidit la mhm. du euh, euh, cër na cër mhm. am feebar la ñuy yokk waaye bu amul feebar kenn mënu ko yokk mhm. bi am feebar yokk waaye bu amul feebar kenn mënu ko yokk bi am feebar nag am na lu sabab loolu am xam nga jékki-jékkiwul rek mel noonu xam nga tey boo koy yokkal doo ko yokkal koo xam ne si mhm. xale bu ndaw la demagul fenn rek nga ne nañ ko yokk déedéet. Mhm. dafay toll ci liggéey war a liggéey nga gis ne li mu bëgg a liggéey mënu ko liggéey. mënu ko liggéey ba pare mhm. gis nga faay yu muy def yu baree bari mooy par exemple tey di tëdd. di gént di jaxasoog jigéen. jékki-jékki jigéen nekk sa xel mhm. nga dugg ci ci ci ci yenn béréb yi mhm. di foye sa bopp effectivement yooyu noonu nee naa bokk na ci fii signe yii di waral awra boo xam ne dafay dafay lem wala mu gàtt awra nag mhm. euh, euh, damay wax ne am na ñoo xam ne seen bos ñambi la am ñoo xam ne seen bos carotte la am ñoo am ñoo xam ne seen bos nawe la bi ci njëkk mooy awra bi nga xam ne mhm. yàlla dogal na karoot la dafa nekk awra boo xam ne dafay sew mhm. dafay sew bu sewee nag sewaayam boobu ala kulli xaal am na noo koy defale ñaan moom mën na dem ba ba mu toll nu ko neex waaye su fekkente bi dafa nekk awra boo xam ne nawe la mhm. en général li ci ëpp Euh, dangay gis ne sababam mooy. Mhm. day faral di day day faral di di di maanaam benn day yéex a jóg. Mhm. te bu jógee du du yàgg ca taxawaay ba. bi doon ñaan bi nag moo gën. Mhm. maa ngi wax itam ne ngir ñi nga xam ne yàlla dogal na ñoom bu ñu seetaanee vidéo bi. mën nañu tugg si fi béréb ñu xool seen bopp dafa am yoo xam ne. Euh, ci suuf dafa def benn lem dafa def benn lem-lem boo xam ne ñu koy wax comme tur bi laa fàtte convoqué gi ci gannaaw daal d'accord day mel lu am ay ndomba daal waaw waaw li ñuy wax ay ndombay baat ak yooyu donc boobu képp koo xam ne daf koo rëyle képp koo xam ne daf koo rëyle maanaam dafa génn lu ëpp dana deeyaale ak télé dana deeyaale ak télé dana di gaaw yi néew kàttan néew kàttan képp koo xam ne bosam dafa maase mooy mbaxana kon mbaxana la mbaxana waaw képp koo xam ne bosam dafa maase kooku moom dana deyaale ak kàttan hmm. te it pour ñu ñaanal ko it jafewul dafa am ñu ko maasele nag am ñoo xam ne da dañ koo génne lu ëpp nga xam ne da gis ne mhm. mbaxana mi xaw na génn hmm. amna na ñoo xam ñi nga amee fièvre bi ci bañ leen di xarfal ñu bal ma ci kàddu waaw dañoo dagg upp am ñoo xamne dañ ko setle am na ñoo xam dafa set am ñoo xamne dafa dafa dafa dafa ki euh dafa dess dafa dess d'accord. ñi ko dessé nak en général toujours ñoy ñoy ñoy ñoy ñoy upp jàngoro signes itam dana ko def. ginaaw bi genti xewé ak rab yek foye ya sa bop yep lolu a part la ne waye li tam benen part la mhm. kon lolu nekkul luñu ñu walé waaw kon bañ nan cër bu cër bu melni dedet lepp lépp cër la mhm. waye nit lu tax kon nga dem wut ay yef ngir bëgg sa yaram volume volume waaw hmm? ponkal yi nga gis nga gis fi ni tay ñu toll lu neex mhm. ndax dañu jek jek toll nonu dedet am na lu ñuy lekk. am na lu ñuy naan am lu ñuy diw seen yaram yi am loo xam ne dañ koy naan sax ngir mu génne ko. effectivement. Mm-hmm. waaye nag xalqullaahi laa yu xayiru mm-hmm. ni mbir mu ci ne na ko yàlla binde man moom mënuma yokk li nga xam ne mm-hmm. mooy mooy euh, mooy li nga xam ne ni ko yàlla bindee woon noonu la mel noonu la mel mënuma ko yokk waaye lépp loo xam ne moom ñaar yi may wax am na ci boo xam ne dafa am feebar biñ ko biñ ko jongalee mu am feebar ak nga xam ne rab daf koo jàpp moo xam muy muy muy muy pam boppam mm-hmm. wala itam mu doon ko xam ne day gént lu bari incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla yëpp dama koy saafara effectivement waaw incha allah macha allah ci kàddu yu am solo yi nii rek lay demee ak ki nga xamante ne moo di sëriñ Abdou Lahad Diop saa bu ñu ko seetsee daanaka dañuy jàngat saa bu ñu ko seetsee dañu fiy diggat leneen loo xamante ne nii euh, lu ees lay doon ñu fàttaliwaat leen rek mbokk yi seen émission ëttu xam-xam la woon ñu doxantu woon ci ba fii ci diwaanu Nord Foire léegi foofu la nekk waaye itam léeg-léeg mu faral di nekk fële ci diwaanu Touba waaye lu ci mënti xew rek ay numéro moo affiché wu noonu ci bas écran bi balaa déplacé wu du jógee sa kër di ñëw di ko seet si jokkool ak moom fan la ci nekk ci ñaari diwaan yi nga xamante ne wax nañ leen ko di amaat mbégte ak contentement bu baax a baax di leen jox dig daje ay bis yi di ñëw ci beneenub toogaay asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu